asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 3 septembre 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy tey doore ko yëglikaay ba nag moom tey dafa xëy ñëw andi ñu juróom benn nit yoo xam ne daal jàpp na ne ñoom ñii ñoo war a jël place u bu fekkente ne nag dem na ci mois de octobre bi loolu daal la mu yëglikaay bi xëy tey wax juróom benn ñooñu nag jàppal Cheikh Tidiane Ndiaye mi fi nekkoon nekkoon premier vice-président bokk na ca Mohamed Ndaw Tyson nga ne nii mbër la ca fa nga xam ne mooy Thiès ak ki nga xam ne mooy kër Diouf moom tamit bokk ca seen seeba Keba Kante mi nga xam ne ni tamit mu ngi fi ak ki nga xam ne moom mooy professeur Djibril Seck mu mel ni ki juróom-benn ñii daal daa mel ni ñoom la ñu xalaat ne est-ce que du am ci ñoom kenn koo xam ne mooy jël sees ba nga xam ne moom la docteur Alioune Sarr jiite woon ay at yu baree baree bare yëg li kay ba xëy ñëw tey wax nu ko ki nga xam ne nag moom moo di Tyson wala boog zos mi nga xam ne mbër la fi woon bëre ba bàyyi bëre zos moom bañ ko laajee ci mbir yooyu daal la mu xam ne nee na Alioune Sarr moom viam yëpp maanaam lu baree baree bari da ko cee jox lamb kon daal zos la mu jàpp moom gis na ne ki ko war a mën a wutu nee na moom kenn lay voteel ñu ne ko kan mu ne Mohamed Ndao Tyson daal moom lay voteel ci ki nga xam ne nii moom moo war a jër palaasu Alioune Sarr wala bu doon tànn moom daal moom lay tànn wala buñ ko tànnee sos ne na moom loola ànd na ca mu mel ni ki yëglikaay bi di suñu làmb fa la waxee loolu écrit ba nga xam ne moom la Mohamed Ndao tey seen jiite woon muy bul faale moom soo bëggee dégg-dëgg daa mel ni seeni mbir moom dox defatu ko ne teg leen toll daal bul faale maanaam dafa nelaw complètement mbër ya bëreetuñu wala boog ña fay bëri bëreetuñu yëglikaay baa xëy ñëw tey toppal ñu ko bu fekkente ne ki nga xam ne nii daal moom moo di ki nga xam ne moom moo di gambien la moom maanaam moom daal fi mu nekk nii moom gis ko ak i bët la nit mënatu la def ak yeneen mbër yoo xam ne ñu nga fa ki nga xam ne moo di val do tamit combat lay xaar ba tey digganteem ak Ahmed Deme mënuñu koo bëre Mohamed Ndaw Tyson nag écrim booba daal dox moom defatu ko moo tax El Hadj ma nga xam ne mooy coach subul Fall nag moom mu ngay expliquer di leeral daal ay combat xam ne dañ koo bañ mu mel ni ki daal bul faale moom soo bëggee dégg dëgg dox moom defatu ko buñ fa jógee ba tey dañuy compter ci yëglikaay bi nga xam ne moom moo di sunu lamb ñëw na tamit diñu wax daal lu jëm ci ki nga xam ne nii moo di mataar Ba ak li nga xam ne nii daal maanaam moom la mel ni koo xam ne nii daal mbirum dem Alioune Sarr gii daal maanaam maanaam da cee nangu la wax wala mu yëy ci yàbbi di ci sori yëglikaay baa xëy ñëw tey wax na lu mel ni ki noonu buru continuer dem fa nga xam ne mooy Leewtoo point net moom ak itam ak koo xam ne nii génn na wax muy Maaw Cissé ma nga xam ne nag moom fan yii ñu ngi ko doon toobaal ak groupe Futurs Médias ne daa ne ci suuf di gor ay tànk promoteur ci combat xam ne taxawal nañ ko Maawa daal nee na li am ba des daal ci Leewtoo point net la ko waxee nag nee na li am ba des gorut tànki kenn te itam ta suufu kenn moom daal nee na waxoon na ak ñoom balaa ñoo ay avance waaye nee na ñoom ñëpp ku ci ne ba ñu taxaw na nee na booba wax ak ñoom wala buy wax ak ñoom bokk ci leneen lay wax ak ñoom mel ni kon daal wax jooja mu ngi ca Leewtoo tey itam nag ku yebu xaar ko waxtaan wu gën naa yaatu fa nga xam ne moo di ca Leewtoo TV o Cissé moo wax loola ba tey bu nu continuer jóge foofu nag dem record record moom la mu ñëw ca Balla Gaye 2 tey fa la xëy di nu wax nag ak li nga xam ne mooy ñeenti saison balance yoo xam ne daal nu Balla war a mën a def pour moytu ko yëglikaay bi ñëw na ca ay année balance am nag yëglikaay bi dikkaat na ca muy 2015 jàpp jàpp jàpp ak yoo xam ne Balla Gaye ci carrière am def na ko année balance mu ñettet moo tax yëglikaay combat bi nga xam ne nii nag wala boog mbër yi nga xam ne war nañu gis ne war war na mën a ak ñoom moo xam kii nga xam ne moo di diggante Eumeu Sène la wala B52 mel ni kon daal Balla bu paree ngir bëre ak ñooñu boo sàggee na ca fin saison lay def ndax la ko waral nag mooy diggante mag ki nga xam ne moom moo di Gris Bordeaux daa mel ni foofu daal boo bëggee dégg dëgg ah daa mel ni combat est-ce que amati na fa ba tey bu nu continuer ci record mu ngi nuy ne daal ki nga xam ne nii moo di Maysa Njaay la xëy tey sëqal waxtaan sa nag ñëw na ci ki nga xam ne nii moom moo war a remplacer Alioune rek yu mel ni kii noonu moom may sa njaay daal la mu xëy daal di xam ne moom mooy loolu nga xam ne nii daal moom moo di nit kanam war a mel ak doxalin yi nga xam ne war na koo mën a amee moom may sa njaay loolu la xëy di ko wax mbirum arbitre tamit ñëw na sa ak seenu gerew daal boo xam ne nii daal nee na moom lu ko jaaxal la te itam lu ko bett la ndax mbir nit lañ ñoo xam ne ci ñoom la ñu bokk te ñoo bokk li nga xam ne moo di famille bi ba tey bu nu continuer dellu fa nga xam ne moo di làmb ak Gris Bordeaux bi nga xam ne diggante ma Gaston Mbengue combat ba bu dee dafa yàqu wala boog mu yàqu maanaam ban adversaire fi mu nekk nii pour Gris Bordeaux waaye damay dellu si record record nag moom ka ma fay fekk moo di selemele ak li nga xam ne jot na koo gàddu ren ci lambi simple ji balaa saison bay taxaw lu toll ci ñeenti drapeau la gàddu ak deux millions cent soixante quinze mille ak juróomi nag yoo xam ne sele gagné na ko waaye la ko ci gën a neex mu ngi koy wax daan ba nga xam ne daan na ko ordinateur muy rawaasam nena loolu daal lu ko neex la am na itam ay naqar yoo xam ne wax na ko ca bokk na ci ba nga xam ne ñàkk na ko ci digganteem ak pakala ay final ci ci quarante huit heures mu mel ni kon selemele daal loolu la xëy tey di ko wax fa nga xam ne moo di cër koor yàgg maar. salaamaaleykum mbokki suivre Leewtoo TV di leen ñuy bu baax di leen ziar di leen jaajëfal comme ni niñ koy defee à chaque fois di ànd ak yéen ci seen revue de l'arène tey nag euh, ma ñëw remplacer sama mag bi nga xam ne mooy Ndékumba Fall yaram bi neexul ñu koy ñaanal euh, mu jug ak si ñu ñëw ak yéen tey ànd ak euh, sama mag ñu ñëw ci li nga xam ne ni mooy jàngat bi ginnaaw bu leen def les revues de presse ba pare ah, bu baax maa ngi la ah waaw baax di la ziar di ko waxee di nuyu nga xam ne depuis moom moo fi nekk xam nga rek comme ni ñuy wax rek moom yaram buy tooy des fois mooy wow maanaam di wér a dee wér a ànd quoi di ko ñaanal yàlla mu wér a baax si liggéey bi. waaw Babacar ne nii mooy waxtaan bi ak Mao Cissé Mao Cissé nag ñëw di ay leeral ginnaaw bi nga xam ne tudd nañ groupe am bi nga xam ne mooy segg ci yàq ay combat ak yu demee noonu. waaw mu mel ni loolu moom démb la ko la ko kii la ñu ko Mao Cissé daal xamal ci li nga xam ne nii moom moo di Leewtoo point net mu mel mel ni benn waxtaan la bu ñu seqoon moom dem fa nga xam ne moo di ca seen kër ga nga xam ne moom mooy TFM mhm. mel ni kon nag moom leeral na ci leewtoo point net waaye itam defe naa ne yooyu ñu ko doon jiiñ yëpp ci dañuy jéem a yàq ay combat di suuf yooyu maa indi na ci ay leeral kon fi ñu jox rendez internet yi rek mooy ci leewtoo tv bu soobee yàlla dinañ fa am vidéo daan dégg Mao si moom incha allah waaw ñu leen di wax ngeen kar ko foofu ca leewtoo tv ñu daal dem fële ca sunu lamb fekk fa ba tey coowalu remplaçant ki nga xam ne ni mooy Alioune Sarr mu war a dem fi ak euh, octobre mandat fii octobre ñoom nag indi nañ tey ay ay ay tête ñoo indi mm. ay nit ñoo xam ne ni war nañ ko mën a remplacé ku si mel ni Cheikh Tidiane Ndiaye Tyson ah ku si mel ni ñoom Maysa Ndiaye Djibril Seck Keba Konté Babacar ba ci Babacar Diouf mi nga xam ne actuellement mi ngi si biir CNG bi waaw ñii ñëpp daal ay sénégalais lañu te ku ci ne yaakaar naa fa nga féete bu dee Cheikh Tidiane Ndiaye la defe naa nekkoon na premier vice président su ma juumalee ay at mhm. ba xëy a xëy démissionné bàyyi kon defe naa kooku xam na làmb xam na bu baax a seen seen ni muy doxe ak lañ ci war a yokk lu ñu ci war a wàññi mhm. mu incarné si làmb ak ni mu soppalee làmb ci wàllum développement ak ni mbër war a comporté woo mhm. ak moom comportement bi mu amee defe naa itam kooku kenn du ko présenté sénégalais yi Maysa Ndiaye itam CRC bu Thiès ku ne gis na liggéeyam foofu Babacar Diouf bi defe naa mu ngi ci kilifa yi ne yoroon làmb ji bokk commission règlement et discipline mhm. kon kooku defe naa ku yore loolu war nga mën yore kuréel bu mel ni CNG Keba Kandé itam nekk na jeune boo xam ne bu am volonté la bu ñuy gis la ci Sénégal ci ay yëngu-yëngum mhm. ci social beeg jàppale ñeeg yooyu ak diriger ay mbër moom it kon xëy na foofa am na lu mu fa xam professeur Djibril Seck bi kazalika naka noonu ñuy six personnes yoo xam ne daal dama naan li am solo daal ki ci gën lay génne na doon ki nga xam ne mooy gën ci làmb rek ñun loolu la ñuy ñaan mhm. parce que et puis li jaraleeral ki nga xam ne nii moom mooy ministre des sports moom moo koy tànn

mais encore une fois rek la ñuy wax soit bi ñëw daal yàlla na doon bi gënal sénégalais nekk bi gënal waa làmb mm-hmm. ba yi ñu des si Babacar ci làmb ji dem si li nga xam ne am na fi bi passé mooy diggante Gaston ak Gris Bordeaux coow li nag xamagul fu ñu fu ñuy mujj me su làmb mi ngi laajte Gris Bordeaux su combat bi yàqoo ban adversaire la war a mën a am waaw loo ci mën a dégg daal bu combat bi yàqu ban adversaire la mën a am ah loolu moom ay adversaire ma ngi ci làmb ji am na ay jeunes yu bëgg a bëree ak moom am na ñoom ne daanoon na leen ñu ngi ci làmb ji mm-hmm. loolu lépp a ngi mm-hmm. bi ah, mm-hmm. moo am ci diggante ak promoteur bi ci ay sorties yoo xam ne am na loolu pour man sénégalais lañ ñun ñëpp nañ ko xool nuñ koy rafetal rek pour que mu continuer diggante ak Balla Gaye Gaston Mbengue mën ko tëgg loolu defe naa mooy li gën a am njëriñ quoi pour moom. nee amul ñàkk waxtaan ah, bien sûr eh, ay sa garabu réeroo semmi ñu waxtaan a koy gor. Uh-huh. ba daane ko. waaw suñu lamb mu ñëw ak ñun tey ba ci écurie bul faale ci wàllu bilan waaye nee nag euh, cas bi mi ngi gën a critique parce que zéro combat lay depuis deux saisons. waaw muy lu doy waar parce que bul faale wax dëgg yàlla yaakaar naa tànq te tudd nañ léegi Mouhamed Ndao Tyson ci comportement mhm. ak doxalinam. Mhm. gisoon nañ fa ay jamono écurie ba bëri na ay mbër macha yoroon tamit nekkoon écurie boo xam ne exemple la doon doon si écurie yi. Mhm. mais boo xoolee depuis Tyson bu baax ba dem ba voilà tey Aliou Mané demoon na bul faale voilà Aliou Mané waaw demoon na Falaye Balde Falaye Balde te voilà moom foofu la mujjee foofu la mujjee yaa ngi dégg mu mel l'écrit ba dafa commencé diyee dem ba nag loolu ñëw ba yóbbe leen ñaari at yoo xam ne teg lañ ñu ngi ko lante yoo xam ne mbër mënu fa bëre muy lu doy doy waar defe naa nag loolu Tyson tamit lu muy tey lu ngi koy tudd ci jiital seen seeg lu mu mën a doon waaye itam olof na nag mbay ci sawewu tànk mhm. bul faale ki nga xam ne moom moo ko sos mu nekkoon inspiré mu indi ko créé ko ba tey ay mhm. a defaat ñu dem euh, ci euh, record fekk fa Abou Ndour Abou Ndour ñëw ak ñun tey ci Balla Gaye ak saison saison blanche yi nga xam ne jot na ko defagum muy 3 mais nee na est-ce que tey jii ak situation bi ni muy demee ni mën na éviter quatrième saison blanche. waaw ndax mën na ko éviter waaw loolu ne euh, ci carrière am ma jumul ñetti at la at la ci def année blanche. comme ni ko mhm. journal bi waxee. Mhm. na ko éviter nag bi yoon ah war na mën a nekk parce que adversaire yaa ngi fi. Mhm. te itam ba gis na combat am. ndax Balla Gaye 2 bokk na ci mbër yi nga xam ne ren ñi ñi ñu gën a démarrer bokk na ci. parce que déggoon nga fi combat ak Boy Niang démarché nañ ko ci côté bu ne sottiwul digganteem ak Gris dégg nga ko digganteem ak Bombardier dégg nga ko ba ci digganteem ak Eumeu Sène kon dama naan ren moom damaa yaakaar ne bu fekkee def naa ne balance mhm. dama foog ne est-ce koy neex mais yaakaar naa ne daal warul mën a nekk quoi pour non non bëri na adversaire yu mu war a mën a bëreel waaw uh-huh. tey koo doon jox Babacar man Ah. parce que lekk ku ne lekk nga sa avance bu morom ba war a a ah, ah. <laughs> Euh, ñëw na tey ci li euh, a dajal tey pour mm-hmm. euh, bu Thiès ci nit bi war a remplacer Alioune ak yooyu nit boobu nag defe naa ñëpp ciy bokk rek mm-hmm. mooy ki gën ci làmb ji mm-hmm. ki nga xam ne dina déglu nit ñi dana waxtaan ak nit ñi parce que itam Alioune lu la waay mën a wax moom def na fi liggéey bu arkan donte nag lépp matul comme ni may faral di wax rek ndax lu mat yàlla kese moo ko am yaa dégg kon nag ki koy remplacer xaar nañu ci moom mu mel melokaan woo xam ne dina raw wi Alioune meloon ci wàllu luy defar ak luy tax mbir mi ñu la jox réussir mbirum arbitre yi tamit même kookuy ñëw tey loolu defe naa bokk na ci mbir yoo xam ne mu ngi koy xaar mhm. te defe naa bu ñëwee loolu war na ko bokk ci li muy évoqué parce que arbitre yooyu nga xam ne dañ leen personne tey ci làmb parce que dañu marqué seen empreinte si làmb moo xam Sitor Ndour la moo xam Malick Ngom la ba si ñoom Dramé ak yeneen arbitre yi nga xam ne ñu nga ci biir mm-hmm. Abdou tey ñëw ak ñun ci bilan kenn benn mbër comme ni mu koy defee chaque jour le bilan de mu ànd seeg euh, Sélémélé Babacar ñu xam ko ci lutte euh, simple bi comme frappe bi mais nag euh, ñëw na si bilan simple am 4 drapeaux 2 millions quinze mille ak cinq bëf moom la am ci ci li nga xam ne ni mooy saison bi donte yeggul sax nag <laughs> waaye sa neex na parce tamit 4 millions 175 mille ak ñeenti nag nga gagné ko te saison ba taxaw ca diggu saison ba yaakaar naa loolu moom ah du ñu mën a def lu dul félicité ko parce que xalaat naa ne bu saison ba continuer woon dina xaalis bi dina gën a takku nag yi dina ah euh, <laughs> waaw dañ ne maanaam mbir moom xamal lu mu mën a doon rek yàlla mooy ñëw ki dogalam yàlla ñëw indi corona mm-hmm, mm-hmm. addina bi yëpp taxaw moo tax xëy na mbir yi demee nii mais que talaam ak mën a bëréem encore une fois ñu fiy profité ji ko jaalewaat way juróom bu góor bi nga xam ne dafa mhm. génn àddina fan yële paas fa nga xam ne moom mooy ca dëkkam ba nga xam ne moom mooy euh, fële nu dëkk ba tudd sax sale Thiès de laa ko xam raison de Thiès <laughs> raison de am na lu ma daal maa xam dëkk ba sax <laughs> waaye campement ngay xool campement ngay xool campement uh-huh. <laughs> waaw kan sele tamit euh, ñëw ci li nga xam ne nii neex na ko ci ne naqari na ko revanche bi ordinateur nee ñaari final leen loolu tam naqari na ko <laughs> waaw loolu moom mhm. daan koo xam ne mhm. mhm. kon loolu lu ko neex la mais la ko naqari mooy 48 heures yi nga xam ne ci a ah. mu jël revanche mu fayu waaw <laughs> waaw ji loolu la tàgg ñi nga xam ne ni ñooy suivre euh, revue de l'arène di leen ñaanal

Mm-hmm. so ki nga xam ne mooy Awa Diop Touba euh, tuuti yaay Sarr Espagne Khadiros Ndiaye Allemagne ak ñeneen ñoo xam ne nii ñu ngi ñu fu ñu mën a nekk rek parce que du ñu mën di lim ñëpp mais l'essentiel que am na ci ñoom des fois mën li leen jukki mais encore une xam ne daal yaa ngi ñuy suivre Aïssa di ñaan yàlla daal yàlla def jàmm Sénégal xam nga nawet bu jeex ak jàmm ñu muurloo liñ ci bay et puis tamit di waxaat gars yi rek ni leen ko waxee woon sax nañ ñu xaar